à un moment dans la vie il faut que ñu accepter li nga xamante ni tey mooy euh, trahison il faut que ñu nangu aussi di perte il faut que aussi ñu nangu ko ni dund gi dafa am na ko yàlla programmé ndax nit ñu bëri ragal trahison hmm, tax na mënuñu dund seen dundu comme dund gu neex giñ ko souhaité ragal abandon tax na malheureusement nit ñi dañuy planifier seen relation wala di jéem a calculer wala di jéem a euh, dox doxin boo xamante ni tey euh, du leen dimbali si seen ay expérience il faut que nga xam ne àddina bi lépp c'est question d'expérience à chaque fois nit def la dara nga ni lii dootuma dalaat yi soo moytuwul dalay dalaat ndax yàlla suñu borom leçon bi mu ñu bëgg a jox ci ginnaaw expérience yooyu c'est juste que ni il faut que ñu euh, defaraat suñu yéene ak suñu intention ndax tey sooy dugg ci relation di calculer nit ki defal naa ko lii investir naa si moom lii donc ngay xaar nit ki delloo la lu gën li nga ko jox wala ngay xaar mu teral la wala ngay xaar mu am mu doxaleeg yow nit kooku su doxaleewul ak yow noonu rek baat bi nga njëkk a utiliser mooy daf ma trahir dafa tas sama yaakaar et defal naa ko defal naa ko defal naa ko sénégalais nag mooy koo xam ne heure bu defee njekk musiba daal ko ci mu ne trahir na ma soo ko ne xanaa dafa te yàlla tax mu ne ah kay yàlla taxul may def weddi ba tëdd naaj bi nag di xalangu mais nit ki boo jëfee dara ñu laaj la sa gémmiñ di wax ni noo yàllaa tax may def say jëf moo lay trahir ndax tey di nga gis nit par exemple indi mbokkam Europe wala indi jabaram Europe mais pour moom diggante warul jeex maanaam doomu aadama yi ñu jàpp ni nit ki soo xasee ba indi Europe rek daanaka moom lu mu liggéey daf la war a jox lu mu am ci njekki daf ko war a partagé ak yow bu dee jabar la loo ko teg daf ko war a nangu bu dee jëkkër la loo ko teg daf ko war a nangu ba day mel ni daal daanaka moom indi bi nga ko fi indi da nga koo jaay du gratuite nit ki sentir ni elle est au piège gis ni moom li ngay xaar moom mënu ko jox parce que li nga ko defal defal nga ko rek parce que yàlla ko jaarale sa loxo maanaam bu ñu jàppee ni nit ñi ngay nit ki ngay indi Europe <laughs> fa que mu ñëw Europe en fait destin am la trahison bi nga xamante ni moom nga bëgg a proclamer ni moom nga dund tegoo ko ci lenn loo xamante ni lu concret la parce que dama naan jabar boo ko indee boo ko defalee defal na la. ndax tout le temps dama koy dégg samay live ay góor di revendiquer wala ay jigéen di revendiquer sama jëkkër indi naa ko Europe defal naa ko lii lii mu dem takk ñaareel sama sama jabar indi naa ko defal naa ko lii lii lii mu tas dem yoonam mais bu dee jëkkër la tey jural na la ay doom kooku trahir la ndax loo ko lebal fay na la ko dëkk na ak yow partagé na ak yow beaucoup de choses te leer na ma ne loo ko defal ci teranga defal na la teranga buñ ko interrogé woon tey moom tamit mën na lib ay teranga yu mu la defal kon foofu trahison amu fa diggante baa jeex rek loolu la jabar bi nga indi Europe aussi soo ne dama ko lebal teraanga mu trahir ma indi bi nga ko indi Europe dafa ko milliardaire n'est-ce pas daf la jural ay doom daf la daan toogal dina yàqal da nga daan faj sa aajo ci moom defal na la ko de choses kon trahison amu fa ndax loo ko lebal lebal na la lu ko raw suñu demee bay gis ni ndakate kon lépp lu may prétendre que ni defal naa ko nit nit ki tamit defal na ma ko loolu suñu demee ba gisee àddina noonu rek dootoo am cet sentiment de haine de vengeance que ni waaw defal naa ko lii lii lii trahir na ma parce que Sénégal dafa am problème ak moowu trahir ak teraanga léeg-léeg ma gis jigéen bu ne par exemple sama jëkkër dafa ma defal teraanga parce que xëy na jëlee na ma si ay contexte yu metti économiquement parlant mais tey mu ngi may tooñ tey mu may teg violence tey defalu ma dara tey mu ngi may teg infidélité mu may teg condition yoo xam ne c'est difficile à vivre et je n'en peux plus mais su ma bëggee demande divorce ñu ne ma daf la lebal teraanga ragal naa divorcer mais li may dund mënuma ko léegi yow da ngay préféré dem hôpital psychiatrique wala da ngay préféré toog naan da ngay <laughs> ngay da ngay ji kóllëre kóllëre du sa yàpp yaram du sa mental du loolu nga koy fayee kóllëre ni nga koy fayee mooy def njekk léegi nag def njekk bokkul ak ki nga xam ne dafa la joxoon cadeau empoisonné moo tax dama naan nañu moytu teranga empoisonné yi parce que am na nit ñoo xam ne suñu la defal teranga empo dañ ci def mu ngi mel nit ki la yàqal poison def ko ci biir yow nga jël yàq bi lekk ko xamoon woon yàq bi bi nga koy lekk daf lay yàq boobu boo ko ñamee gis ne àllaaxira la la jëmee danga koy delloo borom tegal ko fa yàq dem sa yoon te tey teraanga yu ci bëri yi nit ñi defalante problème bi mooy loolu mooy tey nit ki day defal dara ba pare bëgg la gëmloo ni dama la ko defal parce que dama la bëgg dama la ko que dama ci jaamu yàlla mais en réalité li ngay gis mooy nit ki daf ko defal ba pare di xaar attente yu kawe yoo xamante ni yow mënoo ko sax delloo en fait wala li muy xaar ci yow mooy sa dignité pare na pour humilier la pare na pour gaañ la pare na pour euh, def lor la pare na pour tout en fait pour rek rek rek rek que ni euh, dafa la defal teraanga da nga ko war a delloo loolu nag day metti lool en ce ba tax na tey suñu bàyyee xel kon ci suñu ay relation euh, doomu aadama yi nañ defaraat seen toogaay seen digganteeg yàlla doomu aadama yi nañu jàng di def te yàlla tax parce que sooy def te yàlla tax sa yaakaar du taas te li ngay def ak lu ci mën a ñëw ala kulli xaal da ngay gëm ni lii la yàlla dogaloon da ngay gëm ni aussi nii la waroon demee. tey noonu ngay gisee ba ci ay waajur yoo xam ne da jur sa doom moom sant la nga jur ko yaa ko jur indi ko ci àddina xëy na defal nga xool li nga ko war a defal doom ji màgg na amul alal wala tekkiwul nga dëkkee di ko xas di ko toroxal di ko sa di ko humilier tekki woo dara munoo dara doo am dara baaxoo sa morom yi am nañu lii sa morom yi am nañu laa munoo maa yóbbu màq munoo maa defal lii tu es un incapable ba doom jooju dem ba nekk ci dépression wala muy dugg ci ay gaal yi wala dugg ci ay du n'importe quoi parce que li nga koy wax ci ay humiliation ak ay musiba tax na moom li mu bëgg rek mooy teral sama waajur teral sama waajur mais teral sa waajur mais d'accord mais teral sa waajur ci li nga mën wërsëg yàlla moo koy joxe yàlla su fekkente ni joxagula wërsëg yow nga jàpp ni sa waajur jur gi la jur sur terre ko ko war a fay mais <laughs> contrat boobu signé woo ko woon ak moom malheureusement moom moo bëggoon doom am na doom yar na ko ba mu màgg yàlla doom ji wërsëg gi mu ko jox jox ko sax dara ndax yàlla mooy séddale wërsëg loolu tamit suñ ci wul xel dañuy jël maanaam dafa am nit ñoo xam ne dañuy yàq àdduna doomu adama dañ lay lor boo dee jabar nga dañ lay lor bu dee doom nga dañ lay lor bu dee jëkkër nga dañ lay lor et ça c'est cruel ça c'est injuste moo tax nit ñi am leen confiance ci seen bopp am na teraanga yoo xam ne bu leen ko leblante kenn ci kaw suuf nit mënu la defal musiba mu nit lu mu la mën a defal ci teraanga bu bëggee fayee ko ci sa yàpp yaram bi wala bu ko fayee ko sa dignité bañal ba tëdd ci naaj bi préféral nekk nit di la maltraité soi-disant que daf la defal teraanga préféral nekk baadoo la nit di la di la di la di la def du n'importe quoi di jël sa dund gi di ko saccagé soi-disant que dama la defal teraanga contrat boo signé wul maanaam ba ngay signé contrat bi tey boo ne woon nit ki ah sama jabar ga dama indi Europe mais su la indee da ngay liggéey di ko partage ak man de loolu leer na après ndaw si mooy xool mu bëgg wala mu bañ nit ki tamit buñ ko xam ne ah, indi Europe mais su ma la indee su ma la bëggee mooy nangu wala mu mais yow nit ki waxoo ko dara si ak moom contrat ba mu yegg si nga ne ko nii la war a demee mais nit ki bu ko wul su ko neexee kon loolu suñ ko xamee rek ñu moytu daal suñu suñu nekk nii dinañ ko rafetal waaw xam naa nag vidéo bi moom dina suscité beaucoup de polémique ndax Sénégal ci boppam moo am problème ak dëgg mais amul problème ñu daal def niñ daan def